aousu billahi min seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki téléspectateurs yi nga xam ne yéen ànd ak ñun ci télévision bi di Touba Monde bi ñu ngi leen di nuyu ci jiital ci nuyoo bi Cheikh Mahamadul Muntaxa moom Cheikh Mahamadul Basir di ko ñaanal mu yàgg fi loolu ànd ak wér waaye di nuyu suñu kilifa gi nga xam ne lañ toogal muy Cheikh Mahamadul Basir moom Cheikh Mahamadul Basir moom Cheikh Mahamadul Fadil di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér comme niñ ko ñun ñëpp bis bi nga xam ne jala tayi, fi bis boo xam ni, bis bu amala amal la at mu ne ren jii ni ko sëriñ Mbacke Ndiaye leerale sànq nekk juróom-ñaareelu yoon bi muy juróom-ñaareelu édition bi muy sant sëriñ Touba kenn ku ne gis taxawaay bu am solo bi nga xam ne la ci bi di taxaw saa su ne ko ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo ci réew mi waaye rawatina nag ñi nga xam ne la bokkal gox bi nga E fi lañ koy amalee mu di Bolzano nekk ci zone bi nga xam ne moo di e, Trento ñu gën koo xam ci Alto Adige ci ñu Alto Adige ci ñu nekk bis boo xam ne nii bis bu buñ bu ñuy bàyyi xel la nekk bis boo xam ne itam bis bu fi ràññeeku la lool ci lépp dara waralu ko lu dul taxawaay bu am solo bi nga xam ne mi ngi ko ciy ba yàlla def fenn fu ne ci réew mi ba ci biti réew sax ay délégation yu am solo di fa jógee di fi teew si ñu ràññee ci bu baax délégation bu am solo bi nga xam ne mi ngi jógee ba France ak ñi nga xam ne ñi ngi jóge ci biir réew mi ci jóge ci wàll yu bari yu bokkul mbooleem kuréel yi xaside yi nga xam ne tamit ci bari ñu ngi ci biir réew mi suñu borom def tey donte xew-xew yi bari na waaye kenn ku ci ne kóllëre gi nga xam ne moom nga séq ak waa dëkk bi ak kóllëre gi nga xam ne moo dox sa diggante ak sëñ ne moom nga am ci xaside yi jaral la nga bàyyi lépp loo doon def mooy jébbal ko kàddu gi boo ko defee mu andil ñu ay lenn ci ay leeral ci bis bi ak lenn ci tolluwaay yi ak itam lenn ci ay soññe yoo xam ne ni dina jëm ci mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñun di teewlu li nga xam ne moo di liggéey bi بسم الله كسيور خليم يا خير منسل وقاب عصبلة وخير منسل حباب بسملة صلي بتسليمين على من فاق في خلقه وخلقه اتفاقا سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمآل كما بك استعاس من شيطاني ونور بك الأوتاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوني سياري بوك يب di jiital ci siyaara bi sunu waajur wi nga xam ne moo fi teew di sëñ maam Cheikh Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Mourtada di ko ñaanal tawféex Serigne Touba bu baax ndax at mu ne mu ñëw ànd ak ñun liggéey bi ba mu sotti coleet euh, loolu dalal na suñu xel bu baax gën naa dëgëral suñu yaakaar it gën naa rafetal suñu njort ci ne liggéey bi euh, sëñ bi nangul nañu ko ndax bu fekkoon dëppootu ko nangoom ak njabootam duñ fi man di ñëw ñëwee. kon loolu dalal na seen xel bu baax Mbàkke kon noo ngi sant Sëriñ Tuubaa bu baax ci teew gi tey ñaan mu yàgg lool ànd kàttanu biir ak bitti di ñaanal sunu yaakaar yi tey ak ëllëg eh, nga xam ne moo fi nekkal Cheikh Ahmadul Khadim ñu di ko xool jëmmam tey jii ci kaw suuf muy Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan ci barkeb Sëriñ Tuubaa yaakaar yi nga xam ne doomu aadama yëpp am nañ ko ci moom eh, jullit ñeeg ñu dul jullit ñëpp maase ko am ci moom Euh, suñu borom dëgëral yaakaar yooyu ba fi mu bëgg a àggal liggéeyal sa liggéey liggéeyu Serigne Touba fi ko bëgg a àggale mu àggale mu àggale ko fa. ñuy sant nag bu baax mboolem ñu fi teew ñëpp ci liggéey bii nga xam ne ñoog ñëpp ko ànd bis bii nag euh, day bis bu jéggi dayoo ci ñun àgg na ci ñun foo xam ne mëneesatu koo wax euh, li ko waral it mooy sant sëriñ tubaa mag ñi it dañuy wax ne sant moom képp koo gis ma di ko def rek yëg na ne am na lu ko defal nun yëg nañ ne lenn ci lu ñu suñ bi defal ci leen mën a xam am na lu ñu ci yëg moo waral ñu dem ba yëg ne war nañoo mànkoo di ko sant loolu jublu ci bis bi noonu lañ ko tuddee loolu ci jublu sant sëriñ tubaa sant it ki ngay sant day fekk nga natt la nga yaakaar ne moom la gën a bëgg nga daan ko dégg xam ko nga jéem a doxe noona ca bis ba nga tànn ba nga ko tànnal te mooy nii ñu ko xëyee mooy alquran ak xasida ak loolu xam ci lu baax ni ki bernde yi ak yëpp ak salaatu ala nabi yeeg la ci aju lépp lu mën a doon ak belli xar kanam yeeg lépp ni nga xam ne moom ni la waxoon ne ni la bëgg ñu di ko santale boroomam wax na ko ci barab yu baree bare bari li waral muy sant Euh, xëy na danañ ci dikk bu nee ba ca kanam ci jataay bi ci biti incha allahu rabbi euh, dañ koy sant ci li ci jiitu mooy tànn gim tànn dugal ci biir cantuk boromam gi moom borom defal na ko loo xam ne euh, mu di ko ca sant ba mu ko defal moom rek woon waaye tànn gim ñu tànnaat dugalaat ñu ci biir cant googu yi te sant di bokk ci mën naa ne daraja yëpp xeeti maqaamaat yëpp. sant di mo ci gëna reuy ndax bu dunduk doomu aadama jexé aduna jex ban dem ba ëlëk sax ba dem ba ñëpp nek aljana ben daraja rek mo fa am bo xamne dañ koy yokko muy sant dañuy wéy di sant rek bu ñu ba fofa euh, xeeti tuub ak xeeti muñ ak xeeti yooyu yëpp ay maqaamaat la yo xamne li ñi am am solo sant li ëpp doole ba gis nañ sax ne yoon wi nga xamne mo tuddu siratal mustaqim tanya nga xamne moy sun suñ borom tan tanal ko julit ñi yoon woowa borom xam-xam yëpp maasa nañ ci ne siratul mustaqim moy yoonu sant ëpp gi mu ëpp daraja ci mboolem xeeti ibaadaat yi mom sant mo waral iblis bi mu euh, wax sun borom ne ko euh, pas-pas bima am moy mbooleem sa jaam ñi nga xamni jog nañ takku fas tege ci sa yoon wi ba dajeeg sa ngërëm dana galanu ci sa yoon wo wi ba ñi ëpp ci ñom do leen fekk ñu sant لأقعدن لهم صراطك المستقيم لا وخ لأقعدن لهم صراطك المستقيم صراط المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ودقونا نالين في جوجه بس بس بما أموي لا تجد أكثرهم ساكرين فسنا يني نباريك نيوم دون لسانت سنبورم جسلو على مايكوكو كاتنا لكم مريكو دف بام دم بيجني lam waxon mom amna mom iblis ba tax sun borom waxal bopam ne wa qalilum min ibadiya shakur ñu neew ñoo may sant fi ne nga xam dafa reel cant mom bi señ bi ñewé nak mom mbollem xéti yi am yépp sun borom rangal nako ko waye jenn la ci fisal tek ko mu ne fang mu wo ñepp ñu and ci ak mom moy sant sun borom ñuy tan gam ñu tan duggal ñu ci biram tamay mbégtam kese mo waral ñu ñu wul diko santataat loolu bokk na ci njëlbéenu li li tax ñu taxawal bés bi bokk na ci ak yeneen ak yeneen ak jàmm ji nga xam ne am nañ ko ci suñ biir jàmmi xol ak jàmmi ruux ba duñ dugg ci dara loo xam ne euh, wëreesu ci dugg wala ñu wax loo xam ne waruñu ko wax ba tax ñu àgg ci euh, fépp foo xam ne danañ fa dégg euh, waliyaas bi taala lu dul noona ñaare néewaa na nga dem fa fekk fa ab sénégalais rawatina ku dëkk kër sëriñ Touba. lolu sëñ tubaa ñuko tanal jitu ci suñu ruh jitu ci suñu xol ba tax duñ bëgg lu bëgg wut duñ def lu defu wut loolu it dem nañ ba yëgal ko suñu bop bokku ci li waral ñu taxawal bis bi lolu euh, lenn la ci euh, kon euh, xamna lolu la taxaw ni xena xeyna xëy na doyandi na ba xana ba ba xamaat waaw waaye loolu daal bokk ci li taxawal bu bis bi mom tay am pass it fasiyene li fek ñi ngi nek ci kaw suuf di ko di ko amal inshallah rabbi Eh, li feeg ñi ngi nekk ci kaw suuf rek di ko amal eh, di fas yéene di sant ba faw noonu mu waxee woon ne màggal gii muy sante boromam daa fas yéene li feeg suuf saa ngi am muy am ba ëllëg it dañuy dem ba ba bisam bii di nekk bu ñu demee ba àjjana ñu yëg ni mi nga am suñu bis bii dañ ko bëgg yelwaan ko mu dugal dëxalal ñu ko dëxañul dëxañal ñu ko ca biir cantam googee moom tamit waaw nii rek la demee eh, noo ngi sant it ñi mbool mboolem adduna bi yëpp nag ci bàyyi gin bàyyi seen yitte ñoom ñëpp ñëw ci ànd kook ñun di ñaan ñëw gin ñëw ñoom ñëpp mu dajek tawfeex Cheikhul Khadim ci ñoom ñaa koy jërëjëf. jërëjëf euh, Cheikh Mouhamadoul ci kàddu yu am solo yooyu waaye xanaa euh, gis nañ ne rek euh, bis bi xëy na yàgg na yàggul ndax juróom-ñaari at moom yàggul te it daayira la boo xam ne ni ni ko ñëppi waxee ci biir yi kër la commencé woon ba tey suñu borom def mu agsi fi mu agsi dëgg la. ci eh, yëngatu mboolem daayira bi Matlaboul Fawzeyni bi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi waaye tamit ñu gis ne eh, am na liggéey bu am solo boo xam ne itam eh, ca ca ndortale la woon xëy na lool lool mooy màgg ba ba ba ba ba ba agsi fii ndax it barab la boo xam ne nii buñ ko xoolee ci ni réew mi tëddee xëy na nekk na fuñ mën a jàpp ne fu fu fu làqu la waaye li muy li muy làqu-làqu mel ne ne kon am na mbóot mu fi sëñ bi dencoon moo xam ne nii daa toll ci mu war a génn waaw loolu ñi koy laaj bari na lool ba jéggi dayoo ba ci ay kilifa sax am na yu may yu man sama bopp ñu may laaj wax dëgg yàlla loolu xaw ma ko xaw ko ndax dañ may laaj ne ma gis nañ ne daa am dëkk bi am ak yeneen dëkk yu bari ci ci ci ci nature bi ak ci nit ñi loolu am na waaye la ko la ko waral xëy na xëy na mën naa am danañ ko xamee wa waaye gisaguma ko xamaguma ko man maanaam gis naa ko waaye xamaguma ko xamaguma lu mu doon lenn daal xam naa ko nga xam ne yëg naa ne. bokk na ci li li li dàggi seeni ruux loolu xam naa ko bu wér muy e, njàngum xasida ci ñoom du taxaw guddi du taxaw bëccëg ak diglu ko njàngum xasida moom gis naa ni amaluñ ko waxtu amaluñ ko bis amaluñ ko jamono jenn jenn jenn jamono gis naa ni it ñi nekk ci dëkk bi bari na gàllankoor yu gàllankoor nit ñi suñ borom musal na leen ci muy xeeti yi xew ci àdduna bi ay télévision ak ay nangam nangam gis naa ne yooyu yëpp mucc nañ ci gis naa ni it ñaari ñaari mbir yoo xam ne laa xam ci ñoom liggéey ak jàng xasida kese ak jàng alxuraan alxuraan it ñi ngi ciy def noo xam ne euh, ci kaamil yu ni séddoo ci biir gox bi ak limi xasida yu ni séddoo yoo xam ne dafa daf ajuwut ci cant gi dafa sax faw euh, saxal nañ fi rek am na loo xam ne lu sedd xol la loo xam ne bokk nañ ci li ñuy santewaat Sëñ Tuubaa mooy altine ju ne ak alxames ju ne bokkut ak dibéer ji ñuy def daayira bi waaye alxames ju ne ak altine ju ne danañ jàng limub nooru daree ni ak li mu ma maraaxib ak li ma mafaatul bishri ay karab naag ikfini alta na junne saxal ko addi yàlla ko Sëriñ Tuubaa ñaanale ko mbooleem nit ñu baax ñu fi ma a jaar ci adduna te jóge fi dañ ko saxal daa iman faw du manqué loolu nag am na ci loo lu ci sëñ bi diggee woon ci xasida yi maanaam jëmmi tuuru suñu borom fu mu fu mu dëkkee wàcc daa iman te te dëkkut fu mu jaar day mel ni ab taw bu sottiku fo barab bu kekkee bu amoon sobe lu gën a sottiku foofu di gën a set ba mu set wecc wecc ba duñu fa gis lu dul set setu kese loolu mooy leeru leeru xasida noonu lay def fu mu yàgg a sotti ko faw dana dem ba du duñu fa gis ci nit ña ak ci jimmi gox ba dara luy nuru lu dul noona loolu bokk na ci li ma xam jëmmi mag ñi nga xam ne ñoo fi jiitu nit nga xam ne man ba ma fi tàmbalee nekk ak léegi toll na ci fukki at ak juróom-ñett 2000 laa fi laa nekk fii ci ñoom dem naa ba àgg ci réew mi li muy rëy rëy saa su ma wàcc aéroport bul saanu laa si su ma génnee bul saanu aéroport laay jubaliwaat at yi yëpp noonu noonu noonu lay dundee faw euh, kon ñàkkul ne xam naa ci ñoom dara dante xaw ma lépp lépp waaye gis naa ne ñi ma fa fekkoon muy ay mag ñu fi nekkoon ñu jiitu rythme ba ma fekkoon ñu di ko dox ci sëñ Tuubaa ci bëgg lu baax alxuraan xasida ak euh, di soññ gone yi bis ba ma leen gisee njëkkee gis nan doon doxee bisub tey bii soppiku wut benn lu toll ne euh, zarra soppiku wu ci. nan leen jiitoo woon nan leen ni leen wéy di ànd di ànd ak ñoom ba léegi kon li ma mën a wax mooy xëy na mën na maa wax ne doxin wi gone yi dox bokk na ci li ko gën a dëgëral ak li leen ci gën a sawarloo mooy fekk gun fekk ñeen fi fekk di doxe noona ndax bi set dana leen faral di wax ne nit booy ànd ak moom te bëgg mu mel na gën yow mi nekk ci kanamam yaay mel noona ba noppi nekk ci kanamam nag di waaxu couleur bi nga bëgg mu couleuroo ko mu mel noona noonu ngay mel yow ba noppi nekk ci kanamam ba noppi di waaxu jéego yu dëgër noo doxe noonu lay doxe te na mel it noonu lay mel faw ndax ci yow lay xool lépp kon dafa mel ne ni gone yi mel ak doxin wi li muy nuru nuru lu lu lu yéeme ci mag ñi lañ ko royee te ba léegi mag ñi eh, eh, xel wu gone yu yor ñoom it ñi ngi ko yor ànd ak ñoom ba tey eh, loolu it santaat nañ ci Sëriñ Tuubaa ba tey yokkutun tàyyiwun taxawun benn jamono loolu it xam naa ne jort naa ne bokk na ci li tax xëy na doxin doxin wi demee nii sant nañ Sëriñ Tuubaa mais sant naa Sëriñ Tuubaa nag ci womat gi moo womat dugal ma ci ñoom sant naa ko bu baax a baax womat sant naa ko ndax Euh, dimbalee na ma ci ñoom loo xam ne euh, néewaana bu ko keneen amee feneen loola du ay am-am du dara waaye jikko joo xam ne gis naa ko ñu yor ko ndax bu ma fi nekkee euh, su nee dara tudd lu jëm ci sëñ bi danaan sëñ basa ngi fi bu nee sëñ basa ngi fi nag kon sëñ bas la war ci moom mooy la war ca loolu lépp da ko war a man wala mu xam ko ñoom leen ma dimbalee ma sant ko sëñ Tuubaa mooy. melokaan yi nga xam ne meloo woon ko ba mën naa fee nekk weer wala ñaari weer mën naa bañ a gisante kenn te du tax ñu soxla ma ci dara loolu sant naa ko suñ tubaab mooy maanaam lan ma doon soxla lan ma waroon di soxlaa ci wàll gu mën a doon ñoom melo woon nan noonu njëkk njëkk ñu may soxla ñoom kon xëy na suñ bi dama dugal ci seen biir ñu lëkkaloo ñun ñëpp di dox rek di dem te bu fekkoon meloon nan ne dana metti ci man lool ndax lu ñu wax dana sëñ baa ngi fi kon sëñ bay fexe ñu mel noona waaye ndok kon ban ko melee ba noppi kon sant naa sëñ tubaa ci woyofal gi ma woyofal loolu santaat naa ci sëñ baax a baax a baax mën naa daal tawfeexi sëñ Tuubaa gi fi moom ju xóot yoo xam ne euh, neexuta neexuta misaal neexuta wax ku fi duggit nag gis ko mbaa nga yëg ko ni ko sëñ maam Cheikh suñu waajur waxee léegi ci jëmmi dëkk bi nga xam ne boo fi nekkee da nga yëg ne dëkk bi safaanoo nag dëkk yu baree baree bari boo gisul nit kuy dox sax nga xam ne mbedd mi ngay jaar képp da nga mën a waat ne mbedd yi am na wuuteeg yeneen yeneen ne ku génn jëmmi réew mi dugg ci meneen loolu nag xam naa xëy na coobare suñu borom la wala lu mën a doon daal sant nañ sëñ Tuubaa daal sant nañ ko sëñ Tuubaa bu baax a baax a baax a baax jërëjëf euh, sëñ Bass ci kàddu yu am solo yooyu nga wax xam naa ci laaj bu yooyu dikk rek mooy mm, da nga indi sànq cant maanaam ni nga xam ne maam noonu la ko sëriñ fi ko sëriñ bi tegoon tey bis bi bis cant moom it ak it euh, noonu nga ko ñaane sëriñ bi defal la ko comme ni mu waxee ci màggal gi ba ëllëgit mm, mu demee noonu foofu rek yàlla na suñu borom nangu ñaa ngi barke Seexul Xadiim xam naa ñu laaj bi rek mooy ginnaaw léegi cant moom mm, dafa mel ne kon bokk na kon ci eh, maanaam yi gën a màgg. Mm-hmm. ba comme ni nga ko waxee ci lislaam dafa mel ne sax siraatu mustaqim tam ba tey dafa mel ne kon dafay lëkkaloo kon ak cant ba mel ba tey. Mm-hmm. Eh, kon léegi li ñu bëggoon nga baaxañu ko rek mooy xëy na kon mm, maam njariñul cant ci nit ki mm-hmm. xam naa lu mu néew ne rek am naa mbàkki bàlla waaw eh, njariñul sant bokk na ci wax naa la léegi ne la xeeti ibaadaat yi li ñuy bari bari sant ci gën a réy euh, sëñ bi am na fu mu waxal boppam ne euh, mbooleem at mépp yaakaar naa dégg ngeen ko ci fan yee ma di ko wax bis bi ci njëkk ba ca bis bi ci mujj jenn yitte laa am léegi mooy sant noonu la ko waxee wax na ko ñaari wax yu nuroo sax am na foo xam dafa wax ne nasaxtu bi sukri shikaayata falam yashku lahu la amal midaadu wal xalam Admi mep mépp sant rek lay def kon ak sëñ bi ni fonké won xéti xeeti yalla yu mën a doon waaye bu demee ba wax né admi bam jeex amatuma jënd yi jurul rek ndax lima bëggoon lepp suñu borom defal na kon sant amna dara yu reuy amna na feneen foo xam ne wax né nasaxtu bi shukri shikayata fala asko lahu durri fa durri afala ma nga sant suñu borom dutuma jambat mukk ndax mboolem luy xéti lor suñu borom fankal na ba dara dutuma jege ci lu dul kon gis ñu ci alxuraan fa suñu borom tagge jaam bi nga xam ne bu ci amee it man gisuma ko jaam bi nga xam ne mu ngi koy jaamu ci xeeti julli wala xeetu woor wala xeetu lu mën a doon euh, ki ki ma gis mu tagg ko bu wër euh, lu wax innahu kaana abdan shakuran la wax ni'mal abdu innahu awwaab euh, wax wax ci wax yu bare bare ba ci xéewal yim ñu defal sax bi mu ne defal naa leen ay xeeti nopp ak xeeti xol xeeti yëg-yëg yu mën a doon Euh, waaye gisuma ngeen di ma ko jaamoo dafa wax ne defal naa leen ko waaye sant leen ma ci sant nag dafa yaatu mën naa la ci wax benn ñett la sëñ Tuubaa dafa wax ne sant ñetti xaaj la benn xaaj bi mooy euh, xam gi nga xam xéewal gin la defal xam gi mooy benn xaaj bi xam gi rek xam nga ne xéewal a ngi nii gu nekk ci man euh, ma xam ne am naa xéewal loolu mooy benn xaaj bi beneen xaaj bi mooy mm, الحال الحاصل موي حال بيغا خامني مانام ييغ ييغ خول ييغ ييغ روح بيغا ام سي nga am ci bànneexub lin ييغ defal yëg-yëg boobu beneen xaaj bi mooy li nga مو نيه سي ياو nga jëfandikoo ko jëfandikoo gi moy nga delloo ko ca kala ko joxon né na moy mooy dëgg dëgg cant te jëmmi bànneexub ciant dëgg moy loolu moy ñu defal la xéewal nga dello delloowaat ko ca kala ko défalon ñetti xaaj yoy moy xam gi nga xamné amna nangam yëg gi nga ko yëg ak dund gi koy dundaat ñett yoy la wax ne mooy ñetti xaji sant yi nga xamne bu ko jambi de sant digeentem ak boromum de deseelatu ko dara wax na la legi ne la xetu julli xetu xetu wor xetu jëf ju mëna doon sax ki suñ borom ne ko de ko def dane ko boo ko dee def xay na am ma defal la nangam waye sant ya ayyuhal lazina aamanu rku'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul alkhayra su ngeen ko defé de la'allakum tuflihun kon baxna ndigal la ngeen ko wara def waaye euh, nu ma yàlla bal amul garantie bu 100 pour cent laxal la kum la wax laxal la euh, waaye bu dee sant moom ndigal la lu ñu jox ne def leen ko euh, waskuru lii wala takfuruni la wax kon ndigal la loo xam dañ ñu ko jox ba ci yonent yi sax gis nañ ne bi ñuy ñaan suñu borom ku mel ne mën naa ji wax yonent yàlla Suleymaan alayhi salaam ba mu koy ñaan li li yàlla am li muy rëy rëy jalal ko léppam ci kanamam waaye lenn rek la ca tànn mooy sant may ma ma di la sant rabbi awzi'niya an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya loolu la ko wax am na ci sëñ bi xeeti bayit yu bare bare lépp daanaka téeméeri nangam tënk naa ko fi barab dinaa ko indi ci kanam incha allah bu ñu demee ci barab bi ngir wane daraje sant ak fi ko sëñ bi tegoon sant daal mën naa wax ne xeeti ibaadaat yëpp bu nit ki dee sant te muy dëgg ci moom waaye nag sant mat naa xamit lu mu doon mat naa xamit lu mu doon lin la defal wax naa la ko léegi nga delloo ko ca ka ko defal bu dee tànk bu dee loxo bu dee bakkan bu dee bët bu dee nopp lu mu ci mën a doon ki la ko jox dana la bu ci def nangam de ko jariñoo njariñ li mooy mooy xéewal gi waaye bu ko jariñoo ci nangam ñàkk da nga koy ñàkk a jariñoo ca la mbëggut nag loolu mooy njëlbeenug cant gu mu mën a doon waaw ba ci biir a biir nag ba mu xóot ba ci kanam kon mën na tàmbali foofu xanaa ba ci kanam si. Cheikh Mamadou xam naa liñ ci jàppale kon mooy conférence bi ci kanam li ci ëpp ci xasida yi lay jëm ak li ak cant ndax moo ñu fi dajale kon xam naa ni ñuy def bàyyi la nga euh, ne si gan ñi ba ci kanam.